bi liggéey boo xam ne ñu ngi ci woon ay jamono di ko xalaat ba tey yàlla dogal mu liggéey bi nag yàlla mi ngi ko jaarale ci benn partenariat bu dox entre Touba Matériaux ak la société Magenta International seen seen représentant mi ngi fi toog euh, di xamal ne produit yi décoration intérieure lay def ak peinture décoration intérieure soo ko déggee mooy échantillon yi nga xam ne yenn ci yi produit bi di liggéey la mi ngi ni ñu présenté ci salle bi même bi ci sama ginnaaw moom la euh, produit yi nag du lu ñuy jéggaan yi du lu ñuy wuti faneen fii lañ koy liggéeyee soo ñëwee di commandé fii lañ koy composé jox la su la neexee ñun ñu defal la mise en disposition tegal la façon échantillon yi am nga tànn bi nga bëgg ñu liggéeyal la produit bi jox la su la neexee aussi nga yóbbu ñu ci ci sa projet ñu xool projet bi defal la benn ronde bi 3D xayma la ni muy mel su paree ñu xayma la loolu nga xool couleur yi nga choisir ñu war la defal la vidéo intérieur nga xool lépp nga doog a ñëw de sa commande ñu dem ànd ak suñu personnel technique bi on a des am na benn benn qualifié yoo xam ne loolu la ñuy liggéey. ma leen xamal ne tamit du produit boo xam ne dañ koy jéggaani lépp mu ngi fii tey ku am projet soo dikkee da ngay indi projet bi wala sax su la neexee ñun ñu dem jëli mesures yi nga xam ne dañ lay def clé en loolu mooy bi ci facteur bi ci ëpp solo koo xam ne aussi day dem nekk représentant dem di jaayiwaat su dikkee am nañ fiche boo xam ne ubbi nañ ko uniquement pour ñoom nga xam ne produit bi boo jëlee décision nekk représentant euh, Touba Matériaux dinañ la defal ay woyafal ba nga xam ne produit bi yaa ngi ci gis sa bopp comme showroom bi nañ ci gisee boppam comme peintrekat yi nañ ci gisee seen bopp aussi bu dee peintrekat yi ma leen jox benn assurance ci qualité qualité yoo xam ne am na différence ak produit yu bëree bëree bëree yu nekk ci marché national bi ak international euh, suñu for première mi ngi tàmbalee ci qualité ak rendement ñaar yooyu ñooñu produit la yoo xam ne facteur euh, la yoo xam ne dañ koo assurer avant ñu lancer liggéey bi fii ci Touba soo jëlee produit bu nekk ci marché bi par exemple nga jël produit magenta Asovernis la produit bi tudd saa boo defee équivalence bi man nga am différence su dee 100 mètres carrés mën nga am différence ñaar ba ñetti loolu mooy facteur bi ci njëkk déjà pour nga rassurer wu ci produit bi soo ko appliqué foo xam ne ndox bi dafay exposé wu à tout moment jamono bu nekk day taw wala jamono bu nekk day naaj man nga toog ñetti at yoo xam ne couleur bi du changé day resté intact kon nag ci woo suñu bokk peinturekat yi ñoom tamit ñu ñëw ñemee produit bi xool ko euh, dugg ko diagnostiqué ko ba nga xam ne ñoom ñoo koy wëral seen bopp Euh, maa ngi lancé appel sama mbokki peintre sama artistes yi ci dëkk bi ñëpp ak ak ci région bi ci département bi ñëpp maa ngi lancé appel pour ñu ñëw jege si ñu ñu defa ñu ñu liggéeyal aussi ñu tàllal suñuy loxo ñi nga xam ne ñoo bëgg def bi pour application produit yi dinañ lancé dinañ commencé programme bi à partir de lundi ku soxla mën nga ñëw ñu ñu ñu ñu dugal ci suñu base de données. nga xam ne formateurs yi ñu ngi fii pour jàngal la produit bi nga koy appliquer comme ni nga ko bëggee te yaakaar naa suñ demee ci lancé boobu dina tax client bi nga xam ne day jënd day génne xaalisam te du jëndi produit bi dina gis ne produit bi moo ko arrangé parce que soo waree jël set siwo huit siwo si beneen produit bu nekk ci marché bi ci verras que ne yow cinq siwo rek dina la doy pour nga liggéey li nga soxla quantité yi day changé qualité bi day gën xel ñëpp loolu moo tax ma ngi ciy woo sama mbokk rek sëñ Sidi Abdou Khadir mi ngi lu baax lépp a ngi fi oto yu rafet yi gën a lix mi ngi fi ñaanu sëñ Tuuba fenn ay usines yu liggéey ñëw fi ay bureau yu liggéey ñëw ay commerce la waaye ñaan sëñ Tuuba ñaan ci commerce kër yu rafet yaa ngi fi noonu la ko waxoon léegi loolu tam ñaan Sëriñ Tuubaa ba lépp na kon nag ngeen ñëwee di tàmbali seen liggéey boo xam ne day taaral dëkk day rafetal dëkk te Sëriñ Tuubaa ñaanoon la nekk Makka mbir na ñëw fii kon day mel loolu ngeen jël kon ñu ngi sant naa leen fi jóge te des ñëw bi waaye di sant Abdou ba ñëw bi Abdou Lahad yaa ma ni koo xam ne noo koy def na ma dama wax boo tudd Abdou Lahad boo tudd Abdou Lahad fekk doo tàllee si ñam dana tax mu ñëw bi rawatina bi nga ko tuddee ba mu sew ko te bokk na ci dama gën a ñor muy liggéey nag li nga baaxoon yàlla yàlla ko yàlla yokk ba nga fa nga séenal bu weesu ko te musal la aar la yaa ngi ko bokk ak ñuy bànn yomb na yàlla yàlla na ko yàlla def ci weeru tedd bii ak ci gën a dooleel rek rab yi nee rab yi gën a ñàkk fay mooy tin waaw moo gën a woye nag mooy gaynde waaye tin li muy ñàkk ñàkk fay su àndee gaynde day mujj way gaynde li muy am li muy woy woy su ànd ak tëdd si àggale mu ngi ko yow nag gaynde nga ànd ak muy seen demal ca kanam te bul dellu ba yàlla sant yàlla sant ñëpp a ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf